téléspectateurs de la 2STV et de Samatam voilà bienvenue euh, pour euh, un autre numéro de Samatam tey nag euh, Samatam dafa déplacé encore ci banlieue bi précisément Guédiawaye ñëw ñu ñëw fii ci lycée Limamou Laye ñuy def seen la journée culturelle comme d'habitude rek ñu wool waa Samatam ñu ñëw pour couvrir seen événement tey nag ci sabar bi lañ ñu woo moo tax ñu ñëw fas yéene rek wan leen comme niñ ko tàmmee rek dinañ leen woon xale yi sabar bi nu muy demee ñan ñoo leen di tëggal tëgg bi nu muy demee yan fecckat la ñu invité dinañ leen woon sañ sa xale yi daal xale yi seen ay yére seen ay coiffure seen maquillage xam nga banlieue bi nag ñoom nii la dañu def yu baax bu ñu xewlee seen dara du yomb surtout ma mu nekk euh, seen sabar du ñu bàyyi dara mu jàll dañ def yu baax de sañ sa yu baax moo tax dañuy xuus ci biir rek xool seen sabar bi commencement bi naka la jaayum ticket bi itam ci biir xumu na dañuy xool nu ñuy ci ticket ni ñuy defee seen yu baax. waaw ba tey ni ma leen ko waxee woon yegsi naa maa ngi ci biir langue gi fii ci géejawaay Euh, lycée Limamou Laye di def seen journée culturelle tey nag ñu organiser seen sabar sabar bu rëy woolu waa sama time pour ñu ñëw couvrir sabar bi ñu ñëw nag fas yéene leen woon xale ni ñu toogee wan leen seen sañse wan leen seen yu baax seen ay coiffure seen ay dàll seen maquillage wan leen tëgg bi ñan ñooy tëgg ak ban tëgg la ñu indi tey ak yan feem lañ ciy boole du ñu bàyyi dara maa ngi ci diggu géew gi mais balaa dara di commencer damay dem ci leen sama micro ngeen déglu lu baax dergin dergin dergin ma yamba kikil yamba kikil segin dandat woy tama tegal jire kakatar jire kakar kakar damus aw ngañ bàcce jéeg ba ca ginnaaw kër ga gàddu beñem da wuti marché aw regin baw Babacar wa sa jugal teri kor xas na jugal wat sedd bi metti na lool te Paris Sénégal commencé na démb ci guddi ana ñu bëgg seen yaay ñu caxagun julli bi ku ko jël damay dem doxantu ci xale yi xale yu rafet yi ma fiy seen di def ay sañse yu baax di def ay couleur ma tamit laaj leen lan la xalaat ci seen bis bu màgg bi ak euh, luñ ci xalaat seen ay impression du ma bàyyi dara gis naa benn xale bu def fii ay couleur ah def couleur yu baax moom laa bëgg dem jël chéri nuyu naa la. fay naa la. tur naka la. Bintu Fall. Seck dama ñëw ci yow parce que say couleur ñoo ma neex. waaw par exemple jëlal jëlal maay couleur am jëlal daal yi jëlal lépp. waaw namuñu dara. waaw waaw waaw li nga li def nii nag léegi loo tuddee lii. nii noo ko tuddee rek. baax na de. Ah. nga def ay plume. waaw gis nga rek di étew rek. étew bee ko laaj. lan nga lan nga xalaat tey ci seen sabar bi. sabar bi daal xam naa ndaa élèves dañoo ñëw pour defante namuñu dara li ma wulaay moo koy dagate. waaw. dégg naa yéen yi ngeen di def chaque année. naax yi la ñuy def moomuñu dara waaw. waaw yaa yaa ngi dégg ne sama tam dafay préparer anniversaire am. 13 14 15. loolu dinañu neex. lan ngeen nar ci anniversaire boobu. surprise day nekk bu ñu waxee day yàq. waaw war nañoo ak surprise. ñu ngi lay jaajëfal. waaw chéri chéri sa verre noir baax na. ah naxuma. tur bi naka la. yoo lay jàppale maman. justement euh, tey ngeen di def seen ay ngeen def sabar bu rëy. ngeen xalaat ci bis bi tey ak teewaay sama time. sabar bi moom neex na xale yaa yu baax waaw sama time moom moo koy man moom lay sànni li ngay waxee ay pëti lakk man li may daaneel man. maa ngi lay jaajëfal. dëgg la man mi yow yaa may waa dégg nga Anis sama taam dafay préparer anniversaire am. ah loolu 13 14 15 juillet. fan la. 3 jours non stop 3 jours de fête non stop. loolu fan la. ah dina am ci endroit yu bëri dina am voile d'or dina am soirée dina am départ bu jógee fii ba sali ñëwaat mu tombé combat Gris Modou bi rek ñu doon yeggalee ko fa. yéen def lu baax loo xalaat ci yooyu. xanaa baax parce que yéen fii di bëggal xale yi. parce que man sama genre yi du ma am temps parce que maa ngi def terminale san du san mais par samedi ngoon gi si laa toog jàpp de TV setaan leen mais da may bégal parce que lundi ba vendredi jàng ma leen jàkkaarloo yéen rek sama kontaan nañ parce que bon dégg nañ ni da ngeen di ñëw. Euh, bon école bi mooy def Fusco léegi ñu ne de waa sama temps dañuy ñëw yes bu rafet la daal kontaan nañ te apprécier nañ ko. léegi lan nga xalaat ci émission Sama Time en général. en général émission Sama Time bon émission bu neex la parce que bon xam nga dafa concerner élèves yi école yi xam nga bon. neex na daal apprécier nañ ko. waaw sama temps mu ngi waajal anniversaire am le 13 14 15 juillet est-ce que yëg nga ko. quand nag maa ngi koy soog a yëg bon quand même dinañ def nag euh, présence mais quand émission bu neex la apprécier nañ ko. maa ngi lay jaajëfal merci beaucoup. et eh, merci beaucoup. xale yi def yu baax kii def vert mauve kii def orange bleu ñoom dañu bëgg couleur yu baax nag ah yéen yéen la. ah on aime bien les couleurs. en tout cas vous êtes bien habillés. Ah, merci. Vous organisez vos journées culturelles aujourd'hui et euh, aujourd'hui c'est le sabbat vous avez fait appel à Sama Time. lu waral loolu. parce que euh, nous, tout le temps, on suit euh, l'émission par rapport vis-à-vis des autres écoles. On, voit les, les sabbats, Saint-Michel et, autres. Et aussi, ça nous fait plaisir que vous passiez nous voir parce que on va montrer aussi notre savoir-faire en matière d'Adjaragoun. <laughs> est-ce que vous êtes au courant que Samatan prépare son anniversaire le juillet euh, Qu'est-ce que vous préparez pour l'anniversaire on sera kon ñu ngi xaar fecc bi ci kanam donc. waaw fecc ba mu baax. man Anta laa tudd. Anta ngeen di seen journée culturelle tey def sabar bu mag lu waral loolu. ah kontaan rek waaw. teewaayu sama time nag. ah teewaayu sama time loo ci wax. ah kontaan naa si torop yéen ñaar da ngeen nuroo nu mu demee noonu da ngeen nuroo yow gis nga seen xanaa seen ñaari maam yi ñoo bokkoon palanteer. moo tax. moo tax ngeen nuróo nii. <laughs> waaw na def lan lan kiiwee seen journée bi tey seen journée culturelle tey ngeen def sabar nu ngeen dundee loolu. bu ñu xëyee euh, def nañ ouverture bi fees nañ majorette ñu doon école majorette yi. Ah, da bokkoon ci majorette yi. Ah, parce que suñu lycée la suñu école moo xewal donc bu xewalee il faut faudra que ñu ñu ñëw teewal suñu école def ba mu tëb. ngoon si léegi nan ngeen def sabar dañ ñëw rek olof fas yéene def ba kon fecc après ci kanam du yomb. mënut a du yomb a <laughs> est-ce que est-ce que yëg ngeen ne sama taam dafay waajal anniversaire am 3 jours de fête non stop. ah 13 14 15 juillet. Euh, dina am convoi ah. ba dina am euh, de gala dina am bu mag a ay artistes yu mag yu jóge de partout ah. Euh, dina am euh, kii bu jóge fii euh, cortège bu jóge fii di dem Saly ñëwaat ñu dal ci hôtel bu mag def foofu yu baax ñëwaat tombé combat Gris Modou Lô bi yeggalee ko foofu dina ma neex torop dañuy teew di ngeen ci teew wax lan ngeen di pare pour loolu.

gën a